بسم الله الرحمن الرحيم يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك Macky gestul réew maa ngi sànku yëgoo ko lañu réew yee daa ñëwee tey gisatoo ko bari jàmm ak yardal ak ay dimbalante gan ñu daa bàkke nee na mërta xamoo ko xotti war maak saagante xeex yàq ab der yii la ndaw ñiy def métier tey seetluwoo ko ñi xamul naan ndaw ñeeka réew réer nan ni dañu am góomu xol bu metti fajoo ko naqaru xol lañ feesee mooy manifester seeni cër sàll ngaar yi jiite mënoo ko bi bu set ak naqaru yees ñu saxoo muñ ñu di leen tooñ guddeeg bëccëg rek la woo ko ndaw ñi xiif nañ ndóol ñàkk ñàkkaale am xëy njëg yéeg tey post di setul ba nga yéem ko lu fi daajar ab junni tey ñaari junni lañ la tey laaj ngay muñ ndaxam àttanoo ko menn mbir rek lañ mënta muñ mu di sonkoo mi seen xol nga teg ko ba teggiwoo ko li le moo tax policier ak ndawi réew mi ñu ngi jàppante bis bu set àtte ko faaw ngeen xam Sonko li tax ndaw ñi faa ko yàlla buur bee ko def du def defu Sonko bàyyi leen kii ngir yàlla ndax jàmm delsi jàmm gën lii nuy dund donte gëmoo ko ma taxaw fii bur jàmmalal sinu réew mi aar ko ciy lor te loolu kattale woo ko لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك